رحمة ربك بمجنون sëriñ bi maa ngi lay nuyu nuyu bu tedd di la ziyaara gannaaw ba ma demee seeti sëriñ bi ziyaar ko sàkku ci moom ñaan waaye ñaanal ko itam yàlla may ko gudd fan ak wér dama amaat mbégte ñëw toog fii ngir waxtaan ak yow ndax yaakaar naa ay ñett wala ñeenti semaine ci ginnaaw toogoon naa fii ñu waxoon lu mel nii booba ñu ngi ci liggéey yi ñu wax la yéene yi ñu ci am ñëw rendre la compte wax la fi ñu toll waaye sàkku ci yow ñaan euh, li ñu ci def ci diggante bi nag monsieur le maire wax na ko comme temps bi dafa xat du jaar du jar ma ñëwaat ci ndax loolu ma wax moo loolu mu wax mooy li nekk ak li ñu gis bi ñu ñëwee di vérifier li tax ñu man koo def itam mooy tax duma def lu dul rek sant ak gërëm ak félicité ñi nga xam ni ñoo tax ñu am yooyu résultat ndax bi ma ñëwee rek dama nel ni état naam cim réew lépp lu soxal askan wi ci loxo état la nekk bàyyiwul fenn bàyyiwul lenn bàyyiwul kenn lépp état mooy responsable bi te bu xamee cëram amul lenn lu mu war a dummóoyu wala mu tànxam lu ko lu mu dégg rek war na ko jéem a saafara parce que mooy rôle waaye état lu mu xarañ xarañ ay techniciens yi koy liggéeyal ak ay agent am lu ñu mën-mën ak sax lu mu am am alal am na yoo xam ne du ko mën mukk te àndu ci ak nit ñi fa ñu nekk di fa dund ndax seen cër la ñoom ñoo ko moom ñoo ko xam yàlla yombalal ñu ko dimbali ñu ba fu ñu dëgmale jafe-jafe rek bi ñu waxtaanee ñu gis ni am nañ ci solution ba tey jii looloo ñu dimbali ba li ñu sumboon ci ay projet ak chance lu ci bari yegg na am na ci yoo xam ni newoon nañu bi ñu fi njëkkee ñëw dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan waaye yooyu xamoon nañ ni mënul yegg ci diggante fii ak nawet gi ci euh, màggal gi yooyu la ñu ni dana continuer waaye ma ne la woon lépp loo xam ni munta ñàkk fi léeg màggal gi te pexe man koo def doole man koo def xam-xam man koo def wala sax alal danañ ko def ba ma demee ministre de budget ma fëgg ci buntam ba ma demee seeti ministre infrastructure ministre forces armées ministre euh, intérieur bépp ministre ak énergie boo xam ni war nañoo jàppale ci liggéey bi ma woo leen ñoom ñu ñëw jàppale ñu mooy solidarité gouvernementale ba li ñu bëggoon ci projet yi lu ci bari mën koo yeggale kon nag lu ñuy sant yàlla la ma lay tàllal loxo ngir ñu nga ñaanalal ñu ñii nga xam ni ñooy suñu njaboot ci wàllu liggéey sama directeur yëpp directeur u ONAS bu bees bi mooy Seyni Dieng yàlla suturaale ko mission bi mu njëkk a def mooy bii mu def tey barki démb rek la toog yàlla def mu ñëw tuuba ñu koy ñaanal moom itam yàlla defal ko ndam ci lii ko président de la république dénk félicité itam effort bi nga xam ne moo yor ndoxum naan def nañu seen kéemtalaay kàttan waaye nee naa leen duma leen félicité sax lu dul màggal gi romb wala ngeen régler problème mu ndox ba dootuñu ko wax parce que dama ne samay samay nit samay agent ak samay collaborateur jafe-jafey askan wi toll na foo xam ni fu ngeen defee rek ba sotti ba ñëpp sax tàccu xeeb leen ko mel ni defu leen dara ngeen jublu ci beneen problème ba bu ñu naw mukk li ñu def bu ñu ko ndamoo parce que defuñu dara ndax jafe-jafe yi du jeex donte lu bari jéem nañ ko ba yàlla defal ñu ci sutura nee naa leen nawet bi jeexul te réewum bay mbay la bay baykat lañu ñu ngi ñaan yàlla mu wàcceel ñu ndox mu doy mu baax mu mu dajale fépp ngir suñu gàncax gi yàlla jooju ñu ñaan ko ndox mi bañ a lor askan wi waaye mu defaral ñu suñu gàncax ngir mbéy mi ba tax na lii di euh, camion yi ñuy distribuer ci dëkk bi itam muy citerne yi ñu dugal OFOR dugal na 135 citerne pour dimbalee ko nit ñi nee naa leen bépp camion bu ngeen gis ñu bind ci OFOR taf ko ci ku leen bëgg a jaay ndox mi bu leen ko fay ndax ndox moomu du ndox mu ñuy jaay ndox la bu état bi indi pour jox ko askan wi parce que ñu ngi may wax ni am na yu ñu fi daan dégg ma ni leen loo xam ni rek euh, ndox la citerne yooyu ñu def dañ koy ciy taf bind ci ofoor ni yooyu képp ku ko soxla boo ko laajee itam nañ la ko jox bu ko defee mu gratuit parce que ndox moomu kenn du ko jaay ak leneen lu mu ci mën a doon itam ñu ngi koy topp di ko seet di ko saytu pour que li ñu bëgg incha allah yegg ci màggal gi yàlla defal ñu ñu màggal ci jàmm euh, mbokk yi bu ñu ñëwee itam bokkoon na ci suñu yitte ak li ñu xawoon na indil jafe-jafe daaw mooy buntu mairie bi bi nga xamee ni taw na bi su màggal gi benn yoon bi kenn mënu cee jaar ñu tëj ko beneen bi rek doon jàll bu fa ay ay millions nit di jàll dafay metti moo tax ren ñu fexe ba def fa station bi ñu ngi xaar nag bu tawee ñu xool nu muy comporté woo waaye ñu ngi ciy am yaakaar bu baax a baax waaye loolu yi sax yokk naa ci wax sama ministre sama sama collègue forces armées ne ko dente def nañu lu mel noonu na ma préparé matériel boo xam ne daf koy bàyyi bu sorewul fenn dëkk bi bu yàlla defoon la ñu def doyul wala mu indiwaat jafe-jafe armée bi daal di ñëw au secours pour dimbali nit ñi ba jafe-jafe loraange bañ faa am. donc daal pour wax la sëriñ bi nii lépp loo xam ne ni waroon nañ ko def muy ñu bàyyi ci xel def nañ ci suñu kéemtalaay kàttan ñuy sàkku ñaan pour yàlla yombal li des bu ñu yeggee ci màggal gi itam ñu def ko ci jàmm. Cheikh Ahmed Tidiane Dièye ministère bi yor wàllum ndox mi ak assainissement. ñu ngi lay delloo ak nuyoo xam naa sax suñ bas laa waroon wax mu jottali ma kàddu yi ndax coono yi waaye maam tuuti yi ma ci bëgg a leeralaale rek kon ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ak mboolem délégation bi nga ànd ak bépp rawatina directeur général bu bees bu ONAS ak directeur général bu OFOR ak waa seen oo ñoom ak ñu ci des ñëpp ñu ko sëñ Abdou Lahad Ka leerale leeral nañ dégg nañ ko bu baax a baax. gis nañ ci sa yitte ak sa taxawaay ndax li ma doon wax sëñ Basiiru bi léegi rek euh, fi ngeen toll xam ne lu ngeen def rek yéene la waaye jëf dëgg-dëgg mënagut am ku xam ni nguur di doxe am na ci loo xam ne loo ci gis rek da nga xam ne lii mën a am waaye li ci ëpp solo rek mooy yitte woo gi te loolu gis nañ ko ndax buñ la buñ leen dénkee cër bi Touba gi njëkk ñëw ngir xool si jafe-jafe yi ak xool nu ngeen ci may dafa solution loolu nag sëriñ bi booba ci jamono eh, dafa tëju woon waaye yëgoon na ko xam na ko boobu ba nag nii itam ñëw nga fi ay yoon loolu lépp diwaan yi yitte taxawaay kon loolu ci turu sëriñ bi gis na ko bu baax mi ngi lay ci sant di la gërëm ci taxawaay boobu nga xam def nga ko ci wàllu forage yi ndax forage yi moom bi ngay ñëw fekk nga yu bari paanoon ci ak yoo xam ne yàlla def na daaw laa ko toppatoo bañ defoon ko fi ci quartier bi ndax boobu mooy quartier yi gënoon a ndax bi màggal gi jub si laa waxoon waa Ofor nañ xool daaw jig sax la yi gën a manqué ndox bi ñu ko nattee fekk at moom mënutoon mu daaw na lañ ko fi def waaye ñu ko defee jot àgg ba jëriñoo ko waaye fekkee forage yu bëree bari pan ci dëkk bi ba nga dikkee nag nga def ci yitte ju kawe. ba wax dëgg marista wax ni ndege ni fi mu tollagu nii màggal Tuubaa mënta ñàkk ñàkkum ndox waaye fii mu toll nii moom wax dëgg jàpp naa ne bu fekkee fàtt naa kay ndëgg jëmel noonu màggal gu des semaine te dëkk bi ñàkk gu ndox lool am na ay quartier rek ñu maa ngi fu mel ne jennatu foofu xam naa ne ñoom lañ gën a soxla dëgg-dëgg mooy réparé wan yi ndax wax na ne du problème forage ndax forage yi bëri na fa ndax yaakaar naa ci li ma am na ci ñaari forage yu ma fa def kon forage la fa ne na waaye daf ma ne ña ko xam dëgg dëgg dëgg daf ma ne ci problème wan wan yu yàgg na ba tax ndox mi na war a jàll jàllatut fi may la xayira de mooy forage su daaru na moo di jafe-jafe boobu itam yitte ji ngeen ci def ba bëggoon ko def balaa màggal gi waaye liggéey moom lu xaalis bi teew teew xaw de am waxtu boo xam ne ci lañ ko mën a réaliser waaye daal na ngeen xam ne ci li ci seen seen taxawaay moom def ngeen ci li ngeen li ngeen moo tollool yëg nañ ko bu baax kon cant ak ngërëm rek lañ leen ci ameel leen ñaanal yàlla ci barke Sëriñ Tuubaa suñu borom dimbali leen may leen kattan ba mboolem naal ak sumb yi nga xam ne am ngeen ko rawatina ni nga ko waxee ni nga ko junjee mooy fexe ba dëkk bi tàggoog ñàkkum ndox ak assainissement wax naa la ko bu yàggul ne la ñaari jafe-jafe yi nga am gën a am Tuubaa ci sa loxo la nekk mooy assainissement bi ak ndox mi. kon loolu ci jàpp naa ne ndox mi bu réglé sax dana ci wàññi lu ndax li ko gën a yokk mooy suuf si dafa màndi moo tax bu tawee rek bu gaaw a métti ci nit ñi loolu nag xalaat yu bari jaar na fi. mën naa ne 1998 la tam doon daayira bu ñuy wax Tawfiqul Hadi ñoo njëkkoon ànd ak Italie def benn itit bu yàgg boo sëñ Saliou fi ne boo président Abdou Diouf moo fi nekk ñu def itit mooy bi ngeen daan tuddee Touba booba Touba ca yooyu jamono ba sax ndax dëkk bi réegut nii booba yi yëf yi seeragut ndax ca bu ma juumut ëpp toon fukki milliards ci yooyu jamono moo na yor Touba gépp waaye gis ngeen yëf yi ni muy soppi ko bi président Abdoulaye Wade di ñëwee itam am xalaat bu mu amoon tuddoon ko canal di Bawol canal di Bawol la ko tuddoon waaye yàlla defit mujjut sotte ci ci ci biir ak nekkam ba yàlla def euh, ci li nga xam ne man bi liggéey bi nekkee sama loxoog léegi euh, ma ma teewee ko yaakaar naa gàtt gàtt ñaar fukki forage ak juróom def nañ ko ci sama kanam te taxul te teewul dëkk bi di gën a manqué ndox kon jafe-jafe bi daa xóot te xam naa xam ngeen ci dara yàlla def bi 2019 accès ba màggalu 2019 ku ñuy wax Mansour Kama rahimahullahu ñëwoon ci Cheikh mu Mountakha jaaroon ci Serigne Moussa moo indi ko ci Serigne bi ne daa bëgg jàppale Serigne bi ci dëkk bi ci defal ko itit seet nu ñu mën a defaraate réseau bi. ak lu ñu mënee fexe ba xëcc fi ndox mu ñëw fekk na boobu sëriñ bi waxoon ne sama yitte jëpp ginnaaw bu université bi jàllee ndox mi la moom ci yàlla def ci yéeneem ba sëriñ bi bindaloon ko kayit sax ba jox ko ci ndigal moom ci boppam nag moo sàkk woon wax sëriñ bi ne ko bu sañoon président bi fi nekkoon di président Macky Sall yëg ko ba xam ne siñ bee ko jox ndigal ginnaaw bi nag ba mu àggee ci moom. moom moo sakkoon ci sëriñ bi na ko nañ bàyyi état bi defal boppam itit jox ko ko loolu deux mille deux mille dix neuf deux mille vingt la décembre dix neuf loolu. ñu ne ci yaakaar naa ba deux mille vingt trois ci lañ wax ne àgg na yàlla defit moom jotu koo defar jóge fi yéen itam bu ngeen dikkee ngeen waxal seen bopp président bi ñëwee moo wax ci làmmiñam ne yitteem jëpp ci Touba la ci jëkk mooy ndox ak assainissement. kon nag la sëñ Abdoulaye daa wax naan ku ne la jàkk bu ko ne geesu ndax xam nañ seen itteewu dëkk bi muy président Diomaye Faye ak di premier bi Ousmane Sonko ak yow mi ko dénke ci biir loolu nag moo tax sëriñ bi da nim ci xamam ndax état bu ne ak programme état bu ne ak li ñuy tuddee politique ba mu gis ne mooy liggéey ci réew mi moo tax sëriñ bi da ko bàyyiwaat ci seen loxo yéen ndax yéen yéenee xool li ngeen jàpp ne gën na ci réew mi gën ci dëkk bi rek moo xam laaj de guerre la moo xam tubaab bu fu mu ci doon daal sëñ moom jox la leen digal yéen ngeen xool la gën ci dëkk bi gën ci réew mi rek ngeen def ko loolu laay amoon lu ma ci bëggoon a leeral ci kàddu yi kon ji ñaan rek yàlla eh, ci barke Serigne Touba ñu àgg ci màggal jàmm te xam ne góoru góor góoru ngeen ci li ngeen man waaye xam ne ndox moom faaw mu ñàkk ndax bu forage bu dee tàkk te lu ëpp ñaar ñett ci li fi nekkoon ñëwaatu sax faaw ndox mi day ndox mi de manqué kon dañuy jéem ba seen kem kem talaayu kattan li ci am solo rek mooy fexe ba projet yooyu ngeen xalaat nga Touba tàggoog ndox mi ñu feex ba def ci yitte mu gaaw rek loolu ci am solo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Tawfekh ju rëy